de retour sur ce plateau dalal fii euh, madame Diégui Diop Fall di des wu bu baax a baax auprès de monsieur Fall maa ngi doon wax Diouf rek maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci plateau bi. merci beaucoup soxna Assou maa ngi lay sant bu baax di excuser aussi embouteillage bi lundi matin cela va. c'est pas grave que c'est un peu difficile mais Kër mm. Ndiaye loolu la ñuy jógee di ñëw ba fii di excuser auprès de tous les Sénégalais. Mm. merci beaucoup. merci à vous donc euh, ñu fas yéene waxtaanee tey euh, li nga xam ni bu lu njëkk bi nag mooy question bi nga xam ni man euh, en tout cas bëgg naa ñu ñu ñu xamale ko ak téléspectateurs yi moom moo di direction bi nga xam ni tey moom nga nekk di occupé moom mooy direction de la promotion des droits et de la protection de de l'enfant lan moo tax tax a jóg direction boobu. soxna su merci beaucoup maa ngi kontaan si li nga xamante ne danga ma jox opportunité ma mën a expliquer tey jii li nga xamante ne président Macky Sall dénk na ma ko lan la. la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants dafa nekk direction boo xamante ni dafa logé wu au niveau du ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants direction boobu noonu nekk xam nga depuis au moment dañoo tànn li nga xamante ni dafa nekk budget à programme. léegi nag buñ ko buñ ko defee euh, buñ ko defee noonu ñun dafa am par programme ñun ñoo boot ce qu'on appelle le programme enfance programme enfance juróomi structure composé ka muy centre Gindi muy képp koo xamante ni réer nga muy xale wala muy jigéen waaye li ci ëpp xale la mën nañ la yóbbu foofu mu am la case des tout petits l' agence nationale de la case des tout petits mi nga xamante ni dafa yor lépp loo xamante ni mooy càmburu xale de zéro à cinq ans fa muy jàngee na muy jàngee nutrition am développement bu ñu jógee foofu mu am les pupilles de la nation ñëpp xam nañ agence boobu depuis bateau le Joola ba tey lañ ko mettre en sur place waaye teewul day jël les orphelins mooy ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen i ay waajur des militaires yu voyagé woon au nom de la patrie génn àdduna dañuy jël seen ay dossier étudier ko daal di seen ndegam ils sont aptes mën nañu bénéficier wu comme nekk pupille de la nation bu ñu jógee si pupille de la nation mu am cap la cellule d'appui pour la protection de l'enfant qui était logée euh, au niveau de la présidence c'est une cellule euh, d'appui pour la protection des enfants am na boo xamante ni PIPADHS la tudd PIPADHS c'est un projet avec la Banque mondiale sur le développement intégré pour xale yi de 0 à 5 ans les nourritures ba pare ànd ak ñun dans des collectivités territoriale pour ñoo ñu nan la ñuy mën a def ba dans leur budget même ñu mën ci intégrer ce qu'on la une ligne budgétaire à la protection de DPDE, euh, c'est la dim euh, euh, direction pour la promotion des droits et la protection des enfants ñun ñooy PMO bi ñun ñooy responsable programme en enfance au niveau du gouvernement du Sénégal ñun ñooy xeex ci sunu budget ñun ñoo koy défendre ñun ñooy wax ci turu tout ce qui tourne autour du programme enfance en tant que liggéey nag tel tel tel la promotion des droits de l'enfant mooy dañ koy fàttali dañuy fàttali xale kum doon c'est une personne en charge dañuy fàttali lan moo war xale ak état dañuy fàttali lépp loo xamante ni dañ ko war a ratifier sur le plan international wala suñu dëkk jël ko ñu war ko indi fii dugal ko suñu droit positif dañuy fàttali lépp képp muy les partenaires techniques et financiers muy la société société civile képp kuy yëngu ci protection des enfants rek ñun dafa am coordination boo xam ne war nañ si te ñu koy taxawee. loolu day tax ma ma ma ma bëgg xam peut-être euh, jéego yoo leen def parce que bu ñu nee euh, promotion des droits de de l'enfant njëkk xalaat mooy euh, droit à euh, tey ci wàllum jàng euh, mhm. jàngum xale yi parce que gis nañ ni quand même euh, amoon na ay jamono wala bokk ba tey ji sax dañuy dégg mhm. taux d'abandon yi ak li nga xamante ni surtout au niveau des des des des village et tout ça mhm. yan jéego ngeen def ci côté boobu fan la toll fan ngeen jëlee mbir yooyu ak fan ngeen ko yóbbu tey ci wàllum avancé dafa am loo xamante ne dafa taxaw te foofu laa waroon njëkkee sax ce qu'on appelle la stratégie nationale pour la protection de l'enfant ñu koy wax la SNPE qui a été adoptée depuis muy sunu ligne de conduite boo xam ne moom mooy tracé nan la war a mën a doxalee pour la protection et la promotion des enfants quand tu me parles de l'éducation day nekk lu ma intéressé day tax ma fàttali nit ñi que ñun sunu direction elle est transversale on travaille avec plusieurs ministères sectoriels tels que conseillers ñooy suñu président au niveau des CDP concernant question bi nga xamante ne danga ma ko laaj ñun lépp lu laal xale daf ñuy laal lépp lu ëmb xale wareefam ak yelleefam daf ñuy laal éducation bi nag boo ci waxee damay sant monsieur le président Macky Sall son excellence d'autant plus que des efforts énormes ont été faits au niveau de l'éducation et tout le monde l'a vu pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays toutes les revendications des enseignants ont été prises en compte kooku dama koy teg benn point la deuxième point bi concernant la case des tout-petits xale fa muy gimmee pour xam ci lan la jëm parce que n'en ne pas enfant euh, on n'en est pas parent euh, la notion de parentalité fa lañ ko développer mooy comment on devient un bon parent le comportement que l'on doit avoir ñu dugal ko fi nga xamante ne xale bi bu génnee foofu fu muy dugg muy école bi case des tout-petits commencé nañ accompagner xale bi di ko jàngal di ko xool le développement intégré dem ba di xool la nutrition xale bi li muy lekk lan la fan la koy lekkee ci biir école bi ak ban heure loolu moo indi tey au niveau des cases des tout petits yëpp dañoo am seen i ay mbana am lu ñuy toggee ba am kudd ak fourchette ak paaka yoo xamante ne moom la ñu jox xale yi topp ba xool ndagam li ñuy lekk baax na si ñoom ndagam tolloon ak li seen yaram laaj ñu jóge foofu dañuy def ay éducation parentale dañuy woo waajur yi foofu expliquer leen parce que comme li ma la wax kenn judduwu rek nekk parent c'est pas une chose aisée et di ko topp au niveau même de l'éducation ba ci kaw jeune fille par exemple dañ leen di topp di leen xool avec li nga xamante ne am na avec la direction de la famille au niveau du ministère de la famille les jeunes filles seen ndagam ñi xam nañ nañ la ñu utiliser mais en termes de chiffres en en termes de chiffres surtout côté ay Médina Yoro Foulah parce que foofu la ñuy gën a dégg ay taux d'abandon des des enfants ndax peut-être euh, coono bi nekk foofu noonu nga xamante ni ñoom il faut ñu nekk di soutenir seen famille pour pouvoir peut-être euh, foog ñu bàyyi école bi pour mën a gérer li nga xamante ni moom moo di euh, ménage bi. l'autre chose mooy yeneen ñi nga xamante ni peut-être ci wàllum ay viol lañuy ñuy subir ak yu demee noonu tout loolu lépp ci peut-être mën naa ni ci yéen seen ay cause la bokk mbirum chiffre euh, lan lay doon loo xamante ni dañ naan tey fii la mbir yi toll. fii ñu mën a toll quatre-vingts pour cent des jeunes filles sont scolarisées ici le taux de scolarisation est très très élevé surtout par rapport au filles et surtout nag li ngeen di gën a ragal di ko xalaat mooy au niveau du monde rural je viens du monde rural je viens de Podor. Il y a de jeune fii kii sont dans le dans le dans le dans les villages les plus reculés di Sénégal ñoom ñooy gën a jàng parce ay jeunes filles lañu nekk ak seen i ay waajur xëy dem toggi xëy dem rooti ñëw sangu ñoom raxasal ndab seen ay waajur sol seen ay yére xëy dem jàngi wàcc ñëw dugg ci biir waañ bi taal pare jëlaat seen bagage dem jàngi terewu leen am jom def naa ko sama moroom def na ko on doit pas stigmatiser ñi nga xamante ni dañoo nekk au niveau du du du du du monde rural c'est on a d'excellents chiffres man nag mënuma avancer wu torop ci ni la par exemple à Médina Yoro Foulah y a temps en Kédougou y a temps ou à Podor y a parce que focus suma trop ci loolu j'ai j'utilise rarement des chiffres si lu concerne l'éducation tout ce que je peux dire c'est que y a au moins vingt pour cent loo xamante ne ak gis nañu ko ci les jeunes fii yi doon abandonné jàng te fekk na ñoom ñu ngi évoluer génn na ba au niveau du concours général génn na ba au niveau de beaucoup de concours yoo xam te ne ñu ngi koy def te seetlu nañ ni xale yi ñu ngi avancé rawatina les jeunes fii mm. maintenant le taux de scolarisation au Sénégal. dañ ciy tegaat di ci kii loolu moom duma ci sori torop parce que damay wax nekkuma ci wax sa xalaat damay wax lu ma maitriser du ma spécialiste de l'éducation ni de l'alphabétisation mais quand même faut accepter que y a des avancées qui On félicite le gouvernement par rapport à ça, mais aussi on dit à chaque fois il faut une remise en question perpétuelle parce que avancement bu amee itam ça veut pas dire que lépp yemb na damay ñëw ci li nga xamante ni wax nga ko muy le viol. am na loo xamante ne ay jéego yoo xamante ne dox nañ ko wax naa la ko waaw moom laa bëgg a expliquer nii am na foo xamante ne lu bëree àgg nañ fa fi ñu àgg mooy gis nañu ni des textes ont été ratifiés par le Sénégal et lu gën a yaax yaatu ci yëf yëpp c'est en 2020 le Sénégal a adopté une loi pour criminaliser le viol te yemu fa mu def la pédophilie xam nga mënoon la wax viol kese donc pour ñun jéegalu bu am solo ci xale yi léegi nag day am ah soxna Asso dama ragal ni daan na am mais peut-être le développement de l'information le développement des NTIC xëy na moo loon foofu la violence à toujours existé dans ce monde et existera toujours je parce que am na loo xamante ni moom mooy société bi c'est la famille c'est l'information c'est la sensibilisation il faut ñu sensibiliser waat yaay yi état mënta yor gendarme derrière toute une personne état mënta yonni policier ci ginnaaw nit ku nekk état lu mu mën mooy am ay textes adopté ko état lu mu mën mooy poser des instruments juridiques état lu mu mën mooy am ay police de proximité état lu mu mën mooy jël ay gendarmes volontaires embauché leen état lu mu mën mooy jël ay directions comme yu mel ni sunu bos teg ko ñu am ay mécanismes ñun lu ñu mën mooy def ay émissions def ay sensibilisation waxtaan ak waajur yi ñu leen place su xale du mbedd place su xale ci biir kër la rawatina nag jigéen ñi est-ce que yéen a ngi faral di di di communiquer ci ci côté boobu quand je dis communiquer je parle pas des ateliers parce que da ngeen def ay ateliers da di da ngeen di rencontrer wu et tout ça mais je veux dire ngeen gën a atteindre euh, canaux canaux yi nga xam mooy canaux de sensibilisation pour pouvoir atteindre votre cible. Hmm. yan forme de communication parce que ñun bon dañ daan faral di gis ay spot publicitaire yoo xamante ni bon ça peut passer euh, à la RTS ou bien autre yooyu quand même léegi duñ ko faral di gis. <laughs> Euh, poser ma question bu am importance et que ça fait toujours plaisir parce que day tax ñu mën a leeral nit ñi ci li nga xamante ni moom lañu ñu nekk. je t'ai parlé tout à l'heure du PIPA DHS qui se être un programme avec la Banque mondiale on a dégagé une communication bu ñuy def dem au niveau de quatre régions Tambacounda Matam Kaffrine Kolda. je te donne des exemples parce que tout le temps un projet dañuy commencer par une zone avec certaines cibles ñu dem lonkaloo ak ñoom ba defat une convention avec tout les radios communautaires ñuy jàllale suñuy information di jàllale suñu ay sensibilisation en langue locale ñu jógewaat foofu on a dégagé du foofu rek presque une enveloppe de plus de trente cinq millions ñu yëkkatiwaat yeneen enveloppe teg ko pour une communication nationale ñu fas yéene dem ci këru diine yi benn par benn waxtaan ak ñoom expliquer leen quels sont les enjeux même de la protection des enfants te ñu ngi ko doon def dañ koy continuer Il y eu plus de 68 émissions qui ont été faites entre 2020 et 2021 concernant la protection des enfants. Au-delà des ateliers comme yi nga doon wax yemuñu rek ci ay ateliers tëju ci ay euh, euh, salle dañu nekk ci ay ateliers waxtaan càmbar bu ñu paree def point de presse bu ñu paree wutiwaat ay émissions toog jàkkaarloog Sénégalais yi. Hmm. ñu ngi communiquer ba pare plus loin. Il y a des pour la protection des enfants au niveau de chaque département Kër Massar bu bees bi sax di 46 département am na ko ñu jóge foofu ñu def des comités de quartier ñooñu dañuy sensibiliser ànd ak ñi nga xamante ni c'est les kii les les les acteurs communautaires ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni dafa lënkaloo ak la protection des enfants ñu ngi communiquer waaye du doyee je te l'accorde dinañu gën a yokkat loolu moo tax sax on a en perspective une campagne de communication nationale dem ci télé yëpp toog waxtaan ak nit ñi parce que le taux de violence est très élevé et ce n'est pas une spécificité du Sénégal et, c'est dans le monde entier et même en dehors de de de cette violence là dafa am beneen phénomène mooy mooy mooy rapt d'enfants yi dañuy gis également ay xale yoo xamante ni dañ dañ dañ leen di kidnapper dañ ñeen ñi leen di rey et tout ça yéen étudier ngeen situation boobu ba xam lan moo ko waral parce que dafa am recrudescence quand même. absolument ñun dañuy étudier waaye ñun am na fu ñu yem. comme li ma lay wax nous sommes transversal nag. Mhm. nous sommes transversal mooy ku jàpp xale tey tëj ko ci kaso am nañ droit dem dugg foofu xool ko. parce que nous gérons de 0 à 18 ans. Nous sommes transversales parce qu'il y a la police qui est là avec nous, avec la brigade des mineurs. Nous sommes y a le commandement dañuy xool xale yi ndagam mouvement bi la mobilité des enfants avec le projet PAPEV xale yi lan la ñuy yëngu ban côté la ñuy yëngu est-ce que seulement ce son des enfants sénégalais est-ce que c'est des enfants qui sont au niveau de la sous-région parce que am na ñuy jógee Gambie di ñëw fii am ñuy jógee Guinée-Bissau di ñëw fii am ñuy jógee Mali ak guerre bi di ñëw fii am ñuy jógee Guinée-Conakry di ñëw fii bu ñu leen dajalee ñoom ñëpp ñu jële leen ci mbed bi yóbbu leen ci ay centre identifier leen delloowaat leen ñi ngi ciy nekk parce que la mission de l'État elle est régalienne et elle est structurelle c'est pas quelque chose qui est conjoncturel mais am na un fait la violence elle est là la violence on la vie et dans tous les secteurs moi je me dis que le, les mots sont très très profonds et vont au-delà même de la protection des enfants c'est de la société en tant que telle asso nañu xoolaat sunu société bi bu ñuy waxtaan sax dañuy gàjjante bu ñuy waxtaan sax dañuy dóorante bu ñuy waxtaan dañuy saagante je dis que ñun ñi ngi étudier lépp loo xamante ni dafay laal xale lépp loo xamante ni dafay laal kiitudu xale lépp loo xamante ni violence la bu laal xale waaye ñu ngi ci ànd ak li nga xamante ni ñoom ñoo ci seen seen seen ñoo ci gën a xarañ ñoom ñoo ci gën a am xam-xam bu màcc. Mm-hmm. ñi ngi ciy xeex ak ñoom waaye encore je reviens je lance un appel à la famille sénégalaise. Assou, la famille demeure la première cellule d'éducation. Les mamans demeurent les premières responsables d'éducation des enfants. nañu gën a góor waat ci xale ñu ne ñu ne tàlluñu ko ndax euh, conjoncture bi problème mu euh, dépense parce que souvent yooyu les motifs la ñuy joxe que jur yi léegi dañoo tallatul seen doom yi ndax ñi ngi ci mbirum dawum dépense et et loolu est-ce que mën nañu ko accepter euh, famille bi. c'est inadmissible pour man Assou da ngay daw damay daw 6 heures du matin yaa ngi fi depuis 5 heures 6 heures cinq heures du matin je suis debout parce que j'avais un rendez-vous ici à 7 heures qu'est-ce que j'ai fait je regarde d'abord mes enfants est-ce qu'ils ont bien mangé est-ce que tëdd nañu bu faax balaa may tëdd man je suis la dernière tëdd damay xool sama ay doom les enfants n'ont pas demandé à venir au monde assu il a un fait il y a une conjoncture qui existe internationale il y a une cer un, un certain nombre de problèmes sur le plan économique ñëpp koy dund waaye assu doom boo koy jur dafay fekk nga xalaat ko doom boo koy jur yow la neex yàlla tëbul tëbul mën na may nit doom te yàlla mën na ko ndax am na ñu mu ko defal te wax nañ ko ci alquran karim waaye yàlla ku ci nekk may na la nga ànd ak sa xelu bopp nga dem ak sa xelu bopp yow nga décider ni damay jur doom kon boo décider jur doom am nga engagement vis-à-vis de lui vis-à-vis de la société et vis-à-vis de Dieu parce que nag yàlla dafa ni ndénkaane la ndax c'est des personnes en charge metti na waaye boo demee ba nga jur asu da ngay seet noo koy wutalee temps pour mën a am bët boo ko xoolee xam nga lu tax la tax ngay def bu demee ba yàq la ba nar a yàq li taxawoon ngay def loo koy doyee man su ma wuti jee ku tax may wut sama njaboot su ma toogee ba sàggan ba samay njaboot yàqu lan laay doyee ci loolu waxuma bu kenn wut rawatina ñun jigéen ñi dañuy daw waaye nañuy xool nañuy bàyyi xel njaboot gi nañu bàyyi xel ni ils n'ont pas demandé à venir au monde nañu bàyyi xel ni on va rendre compte ñoom xale yi seen bopp parce que bët bi ñuy xoolee. yaay bu attentive wala pap bu attentive di la xool di la saytu kooku ci kooku ngay gën a am yërmante nañu bàyyi bët ni xale yi dañ ñuy xool ñu bàyyi bët ni dinañ rendre compte suñu borom moom mi nga xamante ni ñun ñoo ko ñaan mu may ñu parce que du ku nekk ku ñaan bëgg am doom nga am doom kon je trouve que c'est trop facile am na nag dëkk metti na àdduna metti na loolu moo tax état sax def ay mesures d'accompagnement les femmes toujours qui sont en situation de vulnérabilité dañuy étudier seen cas seet nañ lañ leen mën a joxe defal formation nañ leen leen mën a financer nañ leen mën a toppee am na ñoo xamante ni sax seen doom yi dañ leen di yóbbu case des tout-petits te fekk duñu fay am ñoo xamante ni dañ leen di topp kon di leen topp bénéficier de bourse les jeunes fii am na benn euh, euh, benn bourse boo xamante ne UA sax joxe na ko CEDEAO am na lu mu joxe juste tout le temps pour mën a pour mën a xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof pour mën a encourager mhm. pour mën a pousse pour mën a waxaat nit ñi nañu xool les enfants parce que ñoom ñooy ñu société et si on échoue l'éducation des enfants on échoue toute not nation euh, l'éducation de notre nation d'accord mais j'aimerais quand avoir benn proposition de votre part par rapport ak phénomène bi parce que Euh, am na récurrence certes mhm. yéen a ngi ciy liggéey mais euh, lan ngeen di def loo xamante ne naan mesure la wala jël ngeen ko comme mesure par rapport ak euh, situation bi. on a pris des mesures comme le fait de renforcer la capacité des des des kii des des acteurs communautaires dañ leen defal ay formations au niveau des quartiers def CDPE yi au niveau du département comme je te l'ai dit on on a élaboré des programmes pertinents de renforcement de protection de l'enfant. Euh, on a fait des euh, euh, euh, on a amélioré les conditions de vie et d'apprentissage des enfants au niveau des daara on a initié une loi pour les daara modernes on a fait adopter comme je vous ai dit il y a une loi qui a été adoptée en sur la criminalisation du viol et de la pédophilie on a euh, a une loi au niveau de la constitution il un article boo xamante ni dafa prohiber lépp loo xamante ne dafa nekk mariage forcé des enfants au niveau du code pénal am na article boo xam ne mi ngi foofu dañoo tere ku consommer mariage ak xale bu am 13 ans au niveau de du code du travail 15 ans mooy âge limite bi à ne pas franchir pour un enfant mën a travail tu vois que c'est transversal c'est-à-dire la protection des enfants day jóge ci éducation wàcc ñëw ba ci justice ñëw au niveau de la santé ñëw au niveau de euh, euh, euh, du travail tout ça c'est des mesures qui ont été prises et bu mujj bi c'est le programme de réinsertion et de retrait des enfants en situation de rue. waaw loolu moom programme boobu yàgg na. yàggul. non je veux yàggul te euh, ça a des résultats ci jël dafa bëri mais loolu loolu am xamaguñu mbir yi fu mu toll ba tey. ankay xam nañ fu mu toll. parce que jusqu'en deux mille vingt et un avant Covid bi on a pu retirer six mille sept cent. 37 enfants de la rue. C'est bon objectif sur sur combien de. Si, non c'est-à-dire ça se fait par trimestre ou par semestre. lan ngeen fixé woon on se fixe pas d'objectif parce que c'est un travail scientifique fixé comme objectif dafay mel ni. ça amagul recensement quoi. non c'est-à-dire da nga koy def par point Dakar par exemple nga jékki-jékki nga gis yaa c'est un rush. nekkul loo xamante ni da ngay toog nga ne tey jii à telle période war na am tant de personnes au niveau de y des enfants qui sont dans la rue et on prend des décisions ni léegi dañuy dem jëli ji leen foofu daa et puis ça demande des moyens sa demande une organisation sa demande beaucoup de secteur yoo xam dañu ci dugal seen loxo ñu def ko xam nga ni six mille et quelques enfants bu ñu leen génnee ci mbedd yóbbu leen dans de centres identifier leen jël leen delloo leen ku nekk xale bu nekk foo nga xam fu mu jógee ban dëkk la jóge ban quartier la jóge kan mooy yaayam kan mooy papam te bu ko neexee du la wax am na ay xale yoo xam des nañ ci centre yi de huit mois pour vous dire que c'est pas une chose aisée bu ko neexulee bu la waxulee fan la jógee noo koy delloowee ñu nekk di naxante ba xam ku nekk fan nga jógee ñu delloo leen. ñi ngeen ñëpp en général yi fan la ñuy jógee. ñu ci ëpp dans la zone de Kaffrine. Ah, ñu ci ëpp oui ñu ci ëpp. ñu ci ëpp parce que ci si 6000 et quelques yooyu 198 rek ñoom ñoo ci nekkoon des internationaux. ñu yóbbu leen entre la Gambie Guinée Bissau et la Guinée Conakry cependant. am na temps yi loo gisoon mu xew fii avec les Nigériens. Oui. on a pu sortir 5535. Nigériens de la rue. Et parmi ces 5535, presque plus de 800, non, 1800 étaient des enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'était un phénomène. te mën na amaat mën nañ ko defar avec d'autres populations yoo xamante ne pour diverses raisons raisons nag ce n'est pas seulement de la pauvreté il y a la traite des enfants il y a l'exploitation des enfants dañu lay wax demal nga jëli xaalis boo indi xaalis ma dóor la wala mu am ñoo xamante ne ñi ngi gine ñi ngi Niger di fayeeku xaalis bu bëri parce que ce sont des riches ñiy ñëw ñu am na si ñoo xam ne ñëwoon nañu sax jëndoon nañ seen billet màkk ba pare pour vous dire que le programme de retraite c'est quelque chose qui n'est pas ponctuel c'est quelque chose boo xam dañ koy def anytime c'est un programme du gouvernement c'est un programme social à chaque le besoin se fait sentir on le fait mais c'est pas une chose aisée nous on va éradiquer au-delà du fait que c'est un défi pour nous c'est un défi pour nous génne xale yi ci mbedd bi. lim place su xale fépp la ba mu des pour mbedd. fu ñuy jeexalee mooy journée euh, de l'enfant africain bi ñu war a euh, célébrer le 16 juin Sénégal lan la ci fas yéene def. ah <laughs> merci beaucoup amul loo leen ci waajal wala parce que yaa ngi réeré wala da ngeen ci waajalul dara loo xam ne yéen seen seen wàll lool ngeen fas yéene célébrer journée bi. Euh, parce que ñi ma wër. cest a dire ñi ma wër ñëpp. est-ce que seen budget sax demee na noonu dafa mel ne seen budget taxu ko taxu ko rey de. waaw mais on va faire avec bu manqué rek Ndeye Saly dina ko dolli wala président Macky Sall. Hmm. c'est toujours comme ça loolu moo tax mu am ay euh, loi rectificatives e d'autres d'autres mécanisme de l'État. lan ngeen am comme budget. ah. loolu boo demee assemblée nationale dinañ la ko wax mbaa nga tàppe ko l'essentiel est que balaa comme que temps bi ñu dese bëriwul balaa may taxaw foofu ci budget bi damay ñëw si célébra célébration de la 32e édition de la journée de l'enfant africain bi nga ma interpellé tout à l'heure mm. la journée de l'enfant africain ñu koy wax GIA e lu tax ma ree parce que ñi ma wër ñëpp sama entourage léegi xam nañ lan mooy GIA e ku ma woo rek man la taluma dara parce que dama am GIA e GIA c'est la journée de l'enfant africain qui a C'était en 1976 c'était Soweto en Afrique du Sud dañu boomoon ay xale yu bëri bi ñu leen boomee ñu génn àdduna UA Union africaine mooy li nga xam ne moo ëmb lépp luy état africain si la ñu décidé ni ñoom dañuy fàttaliku loolu commémorer ko bi ñu ko defee ñun au Sénégal bi ñu ko accepté en 1998 si la ñu décidé à partir de la GIA dañuy tegaale li nga xamante ni moom moo tudd SNE c'est la semaine nationale de l'enfant GIA bi yoon c'est la 32e édition SNE bi moo nekk la 34e édition léegi nag ñoom ñaar ñooy ànd léegi dafay tax ñu taxaw comme ni nga ma doon def léegi def loo léegi mooy exercice càmbar lan moo dox lan moo doxul yan jéego la ñu def boobu ak léegi parce que sur place mënta am jéego ñu def est-ce que doy na bu doyul lan la ñu war a yokk koom-koom bi yaa ngi koy wax si la bokk. Mm-hmm. bu ñuy yokk aussi lan la ñu war a corriger waat. ak bu ñuy corriger aussi lan mooy suñu avantage thème bi biyoon c'est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants quelles sont les pratiques et politiques publiques qui ont été faites depuis 1900 depuis 2013 si loolu lañ nekk tànn nag Sédhiou au nom de l'équité territoriale tànn Sédhiou au nom du fait que ce sont des enfants sénégalais et des enfants africains tout le monde a besoin d'avoir les projecteurs braqués sur eux lii moo tax ñuy dem le 16 di ko tëj le à Kër Massar qui se trouve e département du Sénégal et le dernier CDPE merci beaucoup euh, bien résumé donc ñu lay jaajëfal bu baax a baax waxtu wi moo jot nag malheureusement ñu dalaloon fi Diégui Diop euh, Fall donc euh, Fall ah. waaw <laughs> merci beaucoup merci donc ma rectifié wu parce que tout à l'heure maa ngi ne Diouf ba monsieur monsieur Fall xawoon mer tuuti merci beaucoup di leen euh, jox rendez-vous euh, demain bien sûr ci beneen numéro bu Matin Bonheur passez une excellente journée.